laago dina léegi naa am na waa am na saalaatu kaay loolu jamono firdaw si nuusulan ba ci mujj ak saabe muy def boy tëdd jàng ko ñaan yàlla a ci waxtu nangu ñaan bu waxtu nangu ñaan jotee rek yàlla dina la xeele loo ñaan xam ko comme mu réer ko nattu ko rek bu waxtu ñaan di jot rek ngay xew guddi gu nekk na saa soo xam ne yàlla dafay wàcc ku ma ñaan ma jox la ku ma balu ma baal la su ma woo ma wëy la waxtu woowa nag dañ ko nëbb ci guddi kenn la waaye ku jàng aaya ji soo ko nelaw laa budd rek yow ca waxtu woowa